jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bu ñu leen di yoo dal leen ak jàmm ci seeni i actualité du jour des koy dooree euh, ca diwaanu Tambacounda ak kii di wuyoo ci turu Arona Sow moom mi nag ay atam euh, mi ngi toll ci 25 euh, ans moom mi leen sax nag baykat la. bokk na ci li tax ñu daal di koy rek placé su mandat de dépôt ni moom mi leen dafa doon jéem a sàkku benn maire boo xamante ne nii ay atam mi ngi toll ci juróom fukki at moom moom la sax mu ngi ko fekk ci ak toolam muy tollu gerte ba nga xamante ni foofu lay liggéeyee xew ni ki semaine bi ñu génn ci benn village bu nekk foofee ca Tambacounda euh, moom mi nag di wuyoo ci turu euh, Osilla nga xamante ni moom mooy maire bi euh, mi ngi toggoon ci suufu garab gi nekk ci ab toolam ngir daal di noppaliku ci la ko kii di Arona saw daal di ñëw betteeku ginnaaw nag dal ci kawam daal di bëgg rek dindi li nga xamante ne moom mooy ab sërëm ngir yegg ca kawam waaye moom mi di Osila nag dafa bañ ba fa bañ yam rax si doole nag di yuuxu ngir daal di rek woote wàllu ñu ñëw daal di koy rek xettali ci noonu sax nag yeneen baykat yoo xamante ne nii ñoom ñu woon ca beneenu tool ñoom ñëw daal di koy sauver si moom mi nga xamante ne nag moom mooy wuyoo ci turu jamono ji ñu ngi ko rek yóbbu ca diwaanu poste gendarmerie bu nekk ca Gouloumbou daal di koy placé sous mandat de dépôt fas yéene ko jugé ci tentative de viol. ci diwaanu Corniche Ouest bu Dakar nag ñaari góor jigéen moom lañ fa jàpp ñoom ñi de sax daal di nañ leen di defeeri ci kanamu procureur bu tribunal bu Dakar. di leen toppee jamono ji acte contre nature ñoom ñaar ñi leen nag yëf yi mi ngi demee ci benn patrouille boo xamante ne nii waa brigade de recherche bu commissariat Rebeuss ñu ko doon def di sécuriser yooyu lay bërëb ci corniche ouest bi ba ñu fa yeggee nag ci lañu seen rek ci lëndëm gi di niroog ñaari nit yoo xamante ne nii ñu ngi doon kottante ci wetu plage bi nekk foofee ca porte du millénaire ñu leen fa bettee nag ñu daal di tiit ñoom ñaar ci lañu séparoo di jéem a daw ngir rëcc kenn ki di wuyoo ci turu Isaw moom mi le menuisier la mu ngi juddu ci atum 1989 ci la dawee daal di aw ci garab yi daal di rëcc ka nga xamante ne nag moom la doon sekkal di wuyoo ci turu Aba moom mi atam mi ngi toll ci 28 ans foofu lañu ko daal di interpellé ñoom ñaar nag journal bi di Les Échos di xam ne ni bañ leen di jàpp ñu ngi leen fekk solu ñu woon benn yére jamono ji nag ñu ngi leen ah, teg loxo ah, di leen toppee acte contre nature fas yéene leen ah, defeere ci kanam bi mbiri waa ji di wuyu ci turu aussi moom nag la mu def lu lenn lu dul euh, daal di sekk ak euh, doomu rakku jabaram ba mu jëlee ci daal di ëmb xale bu jigéen boobee nag ay atam mu ngi toll ci 14 euh, ans képp maanaam mineur la te dafa ñëwoon rek ci kër aussi mi ngi daal di koy rek jàppale ci liggéeyu kër gi ndax kii di soxna aussi ci weeru juin 2021 bi ab feebar bu méttee métti moom moo ko dal waraloon mu daal di dellu kër ay waajuram ngir toog fa faju ginnaaw bi mu desee moom képp ci kër gi nag moom aussi ci la waxee rek kii di Aminata S di doom ci rakk wala magu jabaram ñëw ci kër ga daal di koy jàppale ci liggéey yu ñuy def ci noonee nag benn bes moom mii di di boroom kër gi ci la wax xale bu jigéen bi nekk ci këram mu daal di ñëw fekk ko ci néegam ndax daf ko bëgg am lu mu koy wax waaye moom mii di Aminata ba mu duggee ca néeg ba ci la ko daal di rek xëcc daal di koy euh, buux ca lal ba ngir daal di sekk ak moom rex si doole sax di ko menacer di ko wax ni bu ko kenn yëgee rek dinaa la faat moom aussi mile nag noonu la ko toppoo jëmale ci xale bu jigéen bi ba mu mile mu daal di cay jëlee ab ëmb ba yëfi feeñee nag moom mi di Aminata yaayam ba mu ko tegee di ko laaj ay question ci la ko rekk wax ni nijaayam jooju de moom moo ko sàkku bu mu jëlee ci ëmb. ginnaaw ba nag la ñu ko yóbbu hôpital ba benn gynécologue daal di confirmer lii di euh, viol bi ak ki nga xamante ne nag moom mooy yaayam ginnaaw bu mu jotee ab euh, certificat médical am ci la jubal euh, ca commissariat bu Pikine déposé fa plainte jëmale ci kii di borom a rakkam. te ñoom policiers yi nag ginnaaw ba ñu demee ci kër aussi ngi daal di koy teg loxo fekk ñu ko fa ndax moom melee dafa dawoon daal di rëcci waaye ay fan ci ginnaaw ba ñu fa dellu si waatee am fekk moom aussi daal di dellu si ca kër ga ci lañu ko mujjee teg loxo ba ñu ko defee ak fuy corporelle nag ak ñoom enquêteurs yi daal dinañuy gis ñaari corne jëmale ci yàmba ci moom mile di aussi ba ñu ko yóbboo ci commissariat ba nag mu jàkkaarloog enquêteurs yi moom mile li nga xamante ne ñu ngi koy rek teg ci dam te muy sàkku xale bu jigéen boobee ba mu ci ab ëmb mu set moom mi di aussi rax si dool li di xam ne ni sax moom dafa jaaxle xamul lu tax ñu koy jàpp te xamul woon ni itam sax moom mi li euh, dañu ko dóor ab plainte ndax deful dara euh, ci la ko rek euh, enquêteurs yi laajee kon lan moo tax nga doon rëcc kenn gisu la leen xamal ni keroog mu séenee policier yi di ñëw dafa daw te mu ngi yoroon rek ñaari corne yamba ci ay pocham moom li di aussi nag ñu ngi koy daal di defeere parquet ba jëmale ci euh, pédophilie ak viol ak détournement de mineur rawatina sax lii di détention de chanvre indien ginnaaw loolee nag moom mi lee euh, kii di soxnaam daf ko daal di euh, ñaan baat teg ci këram yëpp jaxasoo ndax jëf ju ñaaw njooju leen ñëw takkal seenu famille élève bi di wuyoo ci turu Abe bi nag nekk ci classe terminale ay atam tollu ca dix-huit ans jamono ji bu démb doon tey li mu def du ko moom mi leen nag bëggoon a am ak weccat gu muy doxantoo moom moo tax mu di dem di proposer ay service am jigéen yoo xamante ne nii dañuy jaay seen bopp ci noonee nag ci lañ ko dugganteeg benn soxna buy wuyoo ci turu Ndeye Awa daal di koy proposer ne rek moom mën na koo gën a fësalal li muy def di ko partager ay photom ci benn plateforme plateforme Facebook boo xamante ni lépp dafa jëm ci wàllum prostitution muy jaay sa bopp moom mi leen nag ni ki démb sax ci alxames gi lañ leen doon jugé xam day aba nag di xam ne ne ginnaaw bu mu tàmbalee mbir yi ba def confiance kii di Abe Goudiaby ci la sax woo abeneen xaritam bu ñuy wax Atta moom itam dafay jaay boppam ñoom ñaar nag ñu daal di commencé seen liggéey ak kii di AB Goudiaby ci la jël seeni ay photo yoo xamante ni nii daal am na nuñ ca mel daal di koy publier ci yooyu les plateformes muy ay groupe Facebook ngir rek daal di leen di jaay war a bokk utal leen ay clients yoo xamante ni dañuy euh, sekk ak ñoom waaye moom mi di AB Goudiaby nag ba muy bind numéro yi ànd ak yooyu les photo dafa daal di juum ndax seenub numéro di termine terminé 34 daf ko daal di juutal bind ci 43 boobu la erreur nag moom moo ko coûté cher. numéro bi mu juum daal di koy euh, mentionné ci poste ba benn soxna buy wéyoo ci turu M Seck moom moo ko daal di moom euh, moom mi nag dafa jékki saa rek di jot ay woote nit ñoo xamante ne xamu leen xamaalewu leen di ko woo di ko wax rek euh, dañoo bëgg a ak moom ci la jaaxle rax si doon li ba futtu daal di dem nag porter plainte contre X ndax moom mi xamul woon li xew waxee na ñi di enquêteurs yi ni kenn ci ñu ko doon woo daal dina koy wax ni numéro am dañ ko publier ci benn plateforme boo xamante ni ñoom ñi le dañuy jaay seen bopp ñoom yooyu le enqueteur nag sax ci la ñu sukkandiku ci ndimbalu ñu di waa cybercriminalité ba mën a remonter ci AB Goudiaby moom mi nag bañ ko deferee ci kanamu baar bi jëmale ci proxénétisme ak diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs moom ak ñaari ndaw si yooyu nga xamante ni daf ñuy euh, jaay seen bopp juge bi daal dina leen euh, déglu lu jëm ci Ndeye Awa moom nee na rek ñàkk moom moo taxoon mu daal di dugg ci mbir moom moomu di jaay boppam ndax amul woon lu mu fayee rek lu jëm ci jàngu ay doomam tribunal bi nag dafa daan kii di Abe Goudia bi nekk élève classe terminale ñaari atu kaso yoo xamante ne benn bi daf koy tëdd rap lu jëm ci ñaari jigéen ñi nga xamante ne nag ñoom dañuy jaay seen bopp ñoom itam ñaari atu kaso lañ leen dóor waaye fukk ak juróom ya dañu koy tëdd rap kii di Amadou Sow nekk nag ab détenu foofee ca prison bu buur daal dinañ koy euh, teg loxo moom mi le nag euh, ci fàttali ñu ngi ko jàppee ci benn baar bu nekk foofee ca diwaanu buur te ñi def boobule opération mooy policier yu poste jàmm gën bu ñu sukkastikoo ci ay xibaaru Seneweb moom sàmmkat bi li nag ay atam tollu ci vingt cinq ans bokk na ci ñi nga xamante ni dañoo rëccoon ci prison centrale bu Mbour ginnaaw événement yi nga xamante ni moom moo fi xewoon ci weeru mars. ñu weesu ci naka noonee nag ñoom policiers yi ginnaaw benn opération bu ñu doon def jëmale ci xeex rek banditisme ak délinquance ci la ñu daalee def ay patrouille ak contrôle bi ñu defee benn descente nag ci ab bar bu nekk ci diiwaan ba ci la ñu gis ni nag comportement kii di Amadou Sow dafa suspect. Euh, moo tax mu attiré seen attention moom Amadou Sow mi leen nag bi ñu koy jàpp mu ngi yor sax ab benn jaas yi te taxaw ni woon day résister euh, ci kanamu ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, policiers yi waaye itam loolee teewul benn yoon ñu daal di koy rek teg loxo yóbbu ko ca commissariat ba di koy placer en garde à vue moom mi nag ginnaaw bu ñu defee ay investigation ci la enquêteurs yi daal di rek gis ni dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo rëccoon ci prison bu Mbour gëmale ci histoire bi fi amoon ci weeru mars muy coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr loolee waral ab dossier jamono ji gën a tar bi ñu ko defee defeeree nag ginnaaw ab garde à vue am ci évasion ak détention d'arme blanche mi di Amadou Sow dañ ko placé sous mandat de dépôt ci fàttali nag moom mi nupp six mois moom la waroon a tëdd foofee ca prison bu Mbour te la ko ko fa yóbbee woon mooy coup et blessure laa laata mooy rëcc loolee nag bu ci boolee rëcc bi ak agression yi mu def ci policier yi muy détention d'arme blanche dina gën a diisal lii di ab penam mbokk internet yi fi la ñu yem ak yéen tey ci seeni actualité du jour leen dig daje ëllëg am ci yeneen xibaar jaa ngeen